عليك صلاة الله ثم السلام فبركاته sëriñ da nga wàcc nga ñëw ànd ak sëriñ la la la ñu ngi koy tatagal bu baax di tatagal suñu sëriñ maamam moo tara ci saare tariqa bi ci Afrique yëpp mooy Moodu Moodu Jubaal Mawlid Baal di bab ay haadi mi nga xamante ne moo tasaare tariqa bi yëpp ñëw nekk leer ci kaw leer ak délégué ko Madina Cheikh Baye doomu Cheikh Mouhamadul Ayadin Cheikh Ousmane ibnu Cheikh Hussein da seen xarit da seen soppi moom Cheikh Baye Hadi Baye Alhaaji ibnu Cheikh Ibrahim Mohamed Seynab Cheikh Tidiane ibnu Cheikh Mouhamadul Hadi xaritam soppeem Modou Thiam Cheikh Tayib Niass moom na ci délégation bi délégation bi daal sëñ bi nee na yaatu na Alaaji Faal tey daal Cheikh Baye mu ne dafa kontaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu waa Fass yëpp. góor. bàyyi musiba bi élite bàyyi wuñu ko musiba dañ koy fay. yéen ñii tijaan ku ñibbi sa kër balaa bët set da ngay da nga war a fay musiba. waaye lan moo tax bàyyi ko def mu gis ko. ba ñu demee ca zaawiya ñeseen ba. di ko ubbi mu tolloog ñu heure wasifa jot am ñu naan wasifa wasifa wasifa bàyyi daf ne tey ku sikkaru ku sikkaru ajjuma wasifa woo wasifa si maa ko lu tax parce que borom xam-xam yi saalix yi dañoo wax ne dajeeg di ñi joxanteeg ñoom loxo ngir yàlla loolu moo gën sax si gàtt te yi tamit dajee bii ñu dajee kenn mënut mënut ko ku ko utee tey mënoo koo remplacé mënoo koo tabaatal. waaye wasifa moom ku ko utee mën nga koo tabaatal. kon loolu moom moo tax mu leer nañ pour du ne dañoo topp suñu mbiri na ba tax ñu bàyyi wasifa na leer parce que jaamu yàlla yi dajeeg ñoom moo gën a mag si kàkk. loolu loolu moo tax ñu def ko Cheikh Baye Adi nag danaa ko gërëm bugut ko ko gërëm mais tey danaa ko gërëm ngir la euh, gërëm nit yàlla moo ko santaane parce que yàlla ci boppam moo njëkk wax ci alquran ne ñu abd yonent yàlla ayuba yàlla moo wax ne ndaw taw sama jaam bu baax kon fa la ñu war a jëlee ne ndagam yàlla mi nga xam ne lépp li baax ci yow moo ko def ci yow terewul soo baaxee mu ne yaa baax kon ki nga xam ne mbaaxam gi defoo ko ci moom yow war yow yaa ko gën a war a mën a tudd te tudd mbaaxi jàmbur tamit sant yàlla la ko dafay doomi doom dafay doom ju baax ci doomi mbokk mu baax tey danaa leen wax lu doy waar xam nga xam nga mbiram yàlla secret yàlla lu doy waar Cheikh Baye Aladji dafa am lu muy dund xam ko mu xëcc ko ci man am na loo xam ne secret boo xam ne xamu ko bi mu ko xamee dafa yéex keroog bi nga xamee ne ni man maa ngi yàlla dafa maa nattu bi may tere alxuraan fekk na bàyyi génn àddina gannaaw bàyyi laa tere alxuraan waaye Serigne Adi biñ biñ taree ba pare moom moo jël responsabilité dem ci El Hadj Abdoulaye ñaan ko ne ko bàyyi ma organiser tari mi kii bi mottali ci El Hadj Abdoulaye topp ko mu ne ca jumaa jële ko yóbbu ca kanam minbar ba moom mooy mawlit su mawlitee ba pare ci fan yi la suñ mawlitee ba pare ca place ba ñu mawlitee ma mottalee yaakaar naa ne loolu bëriwut la mu taw ci ma loolu sëñ Adi moom ko defal ma biñ paree mu ne ma ñëwal sama kër ma ñëw sa kër mu ne ma sa jigéen nday ay na sama xarit du jug ci man damaa bëgg nga may jege ma jéem ci yow li nga bu fi bàyyi nekkoon dana ko dana ko def ci yow daal di génnee benn yi mbubbam jox ma waaye boobu mbubb mi ma mu ne ma bàyyi ko fi demal ci tiijaan aw sa bi may ñawal ko benn piis nga ne ko mu natt ma dem mu nattal ko loolu Cheikh Baye di bëgg démb laa ko ko nekk xaj na loolu moo tax mbokk bi bëri na waaye nag secret boobu ak mébét baayam boobu mu amoon ci taxawuma te def na ca lu bëri mébét ci baayam boobu moom la ko baayam dama koy wax ngir sant yàlla pour mu nekk exemple ma di leen wax tamit ne Cheikh Baye Adimi ci biir ansaaru diin président commission la waaye terewul mu ne ma doyloowuma loolu ma ne ko léegi kon dañ lay fal ambassadeur ci itinéraire moom lañ ko fal ambassadeur boobu noonu moo ko tax di dox lii muy dox nii tey parce que lii membre Ansaarud Din lii ñoom la waroon bureau bi waaye moom mu ne man comme ambassadeur la ma dox sama liggéey ambassadeur mu ne man nañ wër wër dëkk bi yëpp réew bi yëpp ma ne ko loolu alhamdulilah loolu nag dama koy wax keroog maa ngi koy wax keroog bañ demee Mauritanie ànd ak Baba Lamine Baaba Lamin tamit dafay mag joo xam ne daf may encouragé fu muy dem ci àddina bi rek yóbbaale maa ngi fàttaliku keroog bi ñu demee Cameroun ministre de l'intérieur ñu dem ca bureau ba protocole bi ñëw di def ñi ni ñuy toogee teg ko bëgguma teg ci beneen côté bi pour ma jàkkaarloog moom ndax maa xëcc dama toogal fii ma ne ko sëriñ bi ñii kii moo yore protocole bi nee na mu ne ma eh, toogal fii laa la wax man man sama mbokk dafay toog den ak man lii protocole amul ma toog den ak loolu la may fàttali bàyyi ñes keroog moo tax keroog bañ demee Mauritanie ma ne ci kanam muqaddam yëpp ma ne jotaay bi daf may fàttali la bàyyi waxoon ne yonent yàlla Moussa moom rek moo jox mbokk ak ñu ne ko loolu lan la mu ne moom rek mooy ko xam ne yàlla def na ko kaay ma def la ab yonent mu ne ak neexoon nga boole ci sama frère moom itamit ñun ñaar ñëpp ñuy ay yonent mu ne loolu mooy mbokk kon mbokk dafay taxawu mbokk kon loolu maa ngi ciy sant yàlla bu baax di ci gërëm Cheikh Baye Adi te xam naa ne li taxawaay bi nga def di dana gërëm loo sa baay te nit amul ci kaw suuf lu gën ngërëmaandeel Baye. ngërëmaandeel Baye baax na waaye ngërëmaandeel Baye loo xam ne ci sa loxo Baye la jaar ku teg ko ci loxo Baye boobu beneen affaire te bii moom amee nga ko ci. ma ne ko beneen tawféex bi am mooy wëf bi nga àndal. parce que programme yi ñu woon ànd ak sëriñ su mag si ak kilifa yi yëpp comme ni mu ko waxee Cheikh Tidiane Wulu Seyd mii dafa yegg si rek mu wax ko ko rek mu ne loolu man du ko uti ànd ak ay sëti baay ci côté bu nekk ànd ak njabooti baay gi ñëw loolu ci boppam sens la parce que mënoon nañoo ñëw ñun ñaar rek waaye nag nga départ sa mbokk yëpp ne la lii teraanga la buñ la ko bàyyee ànd ak yow ñëw sagal la taalibe sagal la loolu gannaaw loolu Cheikh Tidiane Wulu Seydi mii mu leen di wax nii mu ne leen mooy sëtu Mawlud Ba xam nga bàyyi am na loo xam ne nii lu jar di bàyyi soo amee sëriñ boo xam ne dafa dem saa bu fexe ba sëriñ yi nga xam ne maanaam xam-xam dañ cee géeju tariqa bi dañ cee géeju wala mbuur dañ cee géeju waaye bi ñu gisee bàyyi ñu gis ne seen géej yooyu li muy rëy rëy rëy géej ak bàyyi gi labal na ko ñoom ñu dugg ñu daal di bàyyi seen ñu daal di ci biir bàyyi jox ko seen lépp. Cheikh Diallo la say mii lu mat weer maa ngi koy oo ñu ne moom ak Mouhamad euh, Mouhamad Wulu euh, Cheikh Abdoulaye ñu ne ma kenn mënu leen a jot fi nekk amul réseau ma ne leen lu xew ñu ne ma ci àll bi lañ nekk pour di ci euh, nag yi nga xam ne moom lañ war a indi ci gàmm loolu bu ci nekk weer jugee fa ñëw ba pare yegg si rek ne la dañuy dem Passy ngir sikkal ajjuma nga ne du ngeen ma fi bàyyi bu amutoon xam-xam sax man am na aw sa yóbbu kii ñu ne ma waaw ñun bëggoon nañoo ñëw waaye jumaa yi bàyyi mais kii euh, kër yi si kër yi euh, jumaa yi bàyyi di mu bàyyi ko ñëw fii xam nga kon kii moom xam na ne moom boppam jumaa juy dox loolu loolu loolu beneen beneen mbir léegi nag li may wax ci kii bi lu gàtt lay dox damaa gis benn lettre boo xam ne bàyyi moo ko bind wax Serigne Aliou ne waxal taalibe yi ne leen yëngatu bii ma gis ñu yëngatu ci ansaaru diin neex na dee def na ko sax bindal lettre ansaaru bindal lettre ansaaru nga wax leen ne seen yëngatu bi ñuy yëngatu neex na gis naa ko maa ngi gërëm waaye nag maa ngi leen di soññ ne nañ yokk nañ yokk nañ yokk seen itti lépp luñ man nañ ko def parce que ansaaru diin mii suma ansaar la man maa ko moom man bàyyi képp ku ci taxaw man la ko def xam nga lu tax képp ku yàlla mas a yónni muy yónent bi ak ñi doon yónent yi ku yàlla jox ab liggéey maanaam tey jii ñu ngi wax monsieur le maire ñu ngi koy gërëm sant waaye xam nga monsieur le maire bi ñëwee ñu fal ko maire mënta ñëw rek toog ci bureau bi moom kenn liggéey bi mu liggéey ko foog mu soxla équipe équipe bii tamit il faut mu tolloo dimension bi nga xam ne moom la am ak yéene bi mu am ci lay tànnee équipe yéenay dégg li may wax kon bàyyi tamit heure bu ku ñëw ci ñooñu ba ci bàyyi il faut dafay soxla ay nit ñoo xam ne seen itte dafay tolloog itte yi dafay jéem a tolloog itte yi seen sëriñ seen seen jikko seen xam-xam seen yëngatu yëpp dafay jéem a ànd ak itte yi ci nga xam ne moom la ñuy dimbali xam su fekkee ne da ngaa bëgg su puus oto boo xam ne oto benn oto wala nga bëgg a yëkkati mbir moo xam ne euh, dafa dafa mat mat ay tom booy départ di dem doo yóbbu ñaari ñaari nit ñi tamit doo seet ñi gën a xëy bon ci dëkk bi nga yóbbu dëgg kon bàyyi tamit ku ko bëgg a liggéey noonu ngay def da ngay xam li nga nar a yëkkati ni mu toll nga préparé préparation bu toll noonu. wa sëlbul iraadi mbëggeel ci sëriñ bi mat nga summeeku ci say bëgg-bëgg su dugg ci bëgg-bëggu sëriñ bi bu ne waaw nga ne waaw bu ne déet nga ne déet nee na loolu ku ko def sa baatin bàyyee ko yàlla bu ci yëm dara day dem rek ni sa mbëggeel toll rek ak sa dëggu noonu lay toll mu ne waaye zaahir lu taalibe joxe addiya ak xidma sa sëriñ moo koy taxawal mu ne man bàyyi am na ci ñoo xam ne ay góor yoo xam ne àndoon nañu man bi may départ ci la kamaalul mahabbati wa salbul irada ci diggante su gàtt dox nañ ci maarifa ci géeji maarifa yi ba àgg koo xam ne benn góor yàlla mosu koo xeex li góor yàlla yu mag yi daan mos mu leen di tàggaleeg seen sago ñoom dañ koy naan ba pare ànd ak seen sago di liggéey mu ne waaye ñooñu ñooñu seen maarifa gu rëy boobu seen jege yàlla boobu ba mu doxee seen diggante xij ba ak joxe addiya seen zaaxir dafa soxla di ngeen wax man ma ne waaw su fekkee ne ñi àgg ci maarifa foofu ñoom la seen zahir bi sooxe ngir ñaxe ñàkk joxe addi ak ñàkk a dugg sëriñ bi ñu maas yi nga xam ne àgguñ ci maarifa fenn ba pare boole ci jox ñàkk joxe addi fan lañ jëm bu boobaa nag nga ma man damaa am wala yéene naa wala man lii li ma am moo bëriwul ma ne la nag sa 1000 francs boobu ngay xeex su fekkee ne fexe nañ ba organiser ba taalibe bàyyi yëpp mën koo joxe dafay daal di nekk lu bëri parce que kël kël buniyaan yi lañ wax nekkatuñ ay moo léegi benn benn euh, tabax la léegi kër gi wala wala kër gi maanaam ay mool lañ daal wax ay ay ay ba jëlee mool yi tabax ko ñu ne kër gi wala néeg bi kër gi la ñuy wax wala néeg bi kon nag comme léegi nekkatuñu ay muul kër gi la kër gi mooy joxe kër gi nag li war a joxe bu ko dajalee boolante ko rek mu daal di nekk li li mu war a su su ngeen déggee li ma ko wax lii mooy ansaar te nag danaa ci mujjee lenn gis nga bàyyi mi dama am lu ñu wax mu ne lépp lu yàlla digle balaa nga koy def laajal sa bopp benn question pour nga mën a jëriñoo ndigal yàlla yi mooy laajal sa bopp ndax lii yàlla dig la digal la am na ci luy jëriñ yàlla wala dé yéen yéen a ngi dégg wax nee na balaa yàlla jaamu yàlla bu mu ci mën ci doon laajal sa ndax lii may def am na yàlla déet du yàlla wala mu ne lépp lu yàlla tere balaa nga koy bàyyi laajal sa bopp ndax am na ci luy yor luy lor yàlla boo ko defee wala déet soo xamee loolu na nga koy xam nga loolu lu ci lu ci lu ci bàyyi jëm mooy booy jaamu yàlla nga xam ni ngay jaamoo yàlla ak li tax ngay jaamu parce que ki ngay jaamu da a jaamu ko jaamu mais li nga koy defal amul amul ko jëriñ lim lay aayee tamit boo ko bàyyee bu ko boo ko defee bu ko lor ma jël ci misaal nag ne kon bàyyi mi ansaaru diin bi mu ñu dégg nagam bi mu fi nekkee la soxlaw la ñu soxlawut pour pour dundee bi bu demee ba aljanna lu mu ñuy defee waaw li nga xam ne yow amalu njëriñ dañ koy defal waaye soo ko defee mu gërëm la te bu la gërëmee yàlla gërëm la loolu bu la téyee waroo seetaan wala li ma wax leeru war nañ góorgóorlu jàppalante te xam ne même lii ñu dajale même xalifa bi sax demul ci poosam demul ci poosu kenn demul ci poosu ansaaru ci président ansaaru diin mais mi ngi dem ci lan bari ki démb dana leen ci jox benn misaal dañoo toog rek police nañu comme yéen a waxoon ne nañ gaaw a ñëw pour escaler pour teel a bañ a ñëw parce que nit ñi dana ñëw fekk sécurité bi ñëw ñëw ne léegi dañoo soxla euh, ñaar fukki mat la soxla lamp soxla nangam soxla nangam ñun ñëpp kenn amul ci benn dërëm suñ leen waxee ne déet xam nga danaa ci joxe benn misaal benn bu ki démb bi ñu doon def fële ci ci kanam gouverneur ñu ngi ko defee kër ga mais xam nga ku jël ay nga jël leen ñu yendu Medina di waxtaan di nosa ko nocci lii la def lii la ñuy def lii ñuy def lii la ñuy def ba ngoon xanaa di leen jox waaw léegi su fekkoon ne ñun dañ leen a dajale ñu daal di kii ba pare rek ñu leen dem añee ji seen bëgg ñoom ñu dem suñ yeneen i naw la yoo xam ne buñ demee ñu jox leen euh, defal leen ñu fi sise ba mag jël ay beexal ne bu ëllëgee buñ leen xooyee fële la ñu gën a sawar loolu yëpp nag ansaaru diin moo leen ci moo leen ci ut yéen ñii ñëpp dama bëgg mu leer at mu jot ansaaru diin dana def ci gàmm bi lu néew néew ñaar fukki million yoo xam ne dañu ne sëriñ bi yow bu fi bàyyi nekkoon ci jamono jii bi ko bàyyee gàmmu gi moom kenn mu di ko financé ci wàllu wàllu finance kon yow mii xalifa bàyyi waruñ la ko bàyyi sa gan yi doy nañ la sëkk duñ la ci mën ci dimbale duñ la ci yokkal leneen bërki démboo Njaay ñu organisé benn conférence internationale ci ci ci ci ci ci ci ci ci Dakar bi ñu fi defoon ci sur la ci ci ci affaire pour affaire jàmm salaam te ñu tuddee woon ko président ah, Macky Sall son excellence mu ñëw ñëw bu rafet def ci àllah ba pare waaye ñëw ñëw bu boo xam ne ba léegi ñu ngi ci sant yàlla waaye ñu tuddee ko buuru Maroc mu dox ci àddina bi yëpp yëpp yëpp ñu jot bërki dem ci journal ñu wax ne buuri Maroc bi ba léegi mi ngi bég bég ci tuddee boobu ñu ko tuddee woon affaire boobu mu rëy ci moom lool loolu def nañ ci lu ëpp 200 millions mais ak Ansar bi moo ko organisé kon dama bëgg loolu dama koy wax tey ñëpp dégg ko pour xam ne Ansarudine bii ñuy wax nii ñu ngi am lu ñu liggéey xëy na dañ koo médiatiser wu ko mais lii yëpp Ansarudine dem naa Cameroun fekkee fa benn gàmmu bàyyi boo xam ne ci conférence boobu ñu defoon Dakar moo leen yëngal ba tax ñoom ñu ne ñoom itamit dañuy def ko te bëgguma yu bëri yoo xam ne conférence internationale boobu dana fa dem ci ci ci ci ci talibaay te loolu yëpp mi ngi jugee ci conférence kon ne Ansar Dine mi ngi liggéey na nga xam ne Ansar Dine mi ngi liggéey waaye nag loolu ba léegi di bàyyi waxoon rek laay wax gërëm nañ ko waaye nag dañu yokk effort parce que kenn ku nekk ci yéen fa mu am nekkoon daaw bugg faa nekk ren bugg faa nekk déwén ku am oto yaa ngi bugg a am beneen oto dégg nga ku am mbubb mu rafet yaa ngi bugg a am beneen ku am kër yaa ngi bugg a am beneen ku am doom yaa ngi bugg a am beneen dégg nga kon booy def ci bàyyi tamit jàppee ko noonu bul jàpp ne defoon naa fii wala defoon naa fii te lii tamit maa ngi leen di leeralal bu mu dox diggante kenn ak ziare bi ëllëg bokkuñ dara ziare bi addiya la sëriñ bi dañ ko jox directement mais lii bu organisé la te gis nga bu ñu organisé danañ àgg ci ñi ngi organisé jëm ci par exemple tey dégg naa fi ñoominte yi ñu ngi leen di bëgg a ba nga xam ne dañ leen di dajale ñoom ñu seet ñoom en tant que nappkat lan lañ war a yi nga xam ne ñoo jokk ci bàyyi lan lañ war a mun a jàppalante pour dimbalante ba nga xam ne kenn dootu néew doole ci seen biir maa ngi recensé même borom jakartaay fi mu ne àgg nañ ci borom jakartaay yii nii am na ci garage bi nga xam ne moo nekk kër maire den bu jàmm ñoom bind nañ ci Ansaarud-Din bëgg am seen i loolu mentalité boobu ak aqliya boobu moom lañ bëgg taalib baay yëpp yor ko dégg nga bëgg suñu xalifa bi am kattan Madina macha allah taxaw taxaw boo am ne doomi bàyyi ak ak ak ñi war a sàmm affaire bi am loo ku ci nekk amatoo soxlaay dem di uti kenn. Cheikh Diagne wala tey mi ngi nii boo demee tumb yàlla fekk ko la muy liggéey di ci jàngale ak tasaare fayda bi ak tasaare tariqa bi ak nangam nangam dugg ci àll bi mais léegi-léegi mu temps yoo xam ne foog mu génn jéem a dugg ci euh, àll bi jéem a uti wërsëg pour ñëw jox ñëm du def loolu nag tant que dépassé wuñ ko duñ duñ duñ duñ du sotti président de la république bu Sénégal bi est dana tëj bureau bi dem naan may leen ma compté damay dem uti dépense bu ko defee est du dox dañ koy jox lu mat ba pare sax jox ko kees boo xam ne ni ko koo bëgg may may te kenn du la ko laaj pour nga mérité nekk nekk nit ma tëjee sama wax waxoon naa ne war tëb gudd te muy gudd ma tëjee sama wax rek ci benn wax Alaaji Abdoulaye menn mu bàyyi eh. ba ba Alaaji Abdoulaye maanaam Alaaji mu mag al nee nañ bi demee ba nekk mag wéri di ñëw dafa seetlu ne danay toog ay fan kenn du ñëw ci moom ci njabootam gi wax ko soxla nekkete moom loolu daf koo métti xam nga lu am na loo xam ne léegi la xew bu njëkk ba boo amoon sa baay wala sa nijaay wala sa kilifa mu lu yàgg waxoo ko soxla daf naan yow kon defoo ko kilifa dafay man defoo ma kilifa nga ne ko lu tax baay pourtant jox naa la cër mu ne dag maa mas ta wax sa soxla moo tax ma yaakaar ne naw la bàyyi sax am na ñu ko wax waaw yow man dama yaakaar ne defoo ma bàyyi nga ne ko lu tax mu ne la parce que dama ma xaw danaa la wax nag léegi li tax alaaji Abdoulaye toog ba mu yàgg mu dajale njaboot yëpp mag ñi ko fekkee keroog nee na leen keroog daf leen a wax wax boo xam ne dafa taw yaram moom dafa doon xam nga nitu kii la ful la ak wax dëgg mais keroog nag moom daf leen a wax waxi sentiment boo xam ne dafa taw yaram njaboot yëpp toog mu ne waaye yéen it bu leen def nii nii baaxut ñu ne ko luy lan lu ñu la def lan la mu ne wax leen ma seen soxla yi ndagam may seen kilifa man ngeen yaakaar seen soxla yi indi leen ma ko ngeen wax ñàkk maa wax seen soxla yi daf may daf may daf may daf may métti wax seen soxla yi lu ma ci mën a faj ma faj ko lu ma ci mën a faj ma wéet yàlla juboo naag moom lool ma ñaan ko mu fajal ndax nit boo ko tanee te doo ko dimbalee doo ko gënal kenn dégg nga wax nit boo ko tànnee te doo ko dimbale doo ko gën a kenn kon nag taalib bàyyi pour ñu buggante pour ñu euh, xamante pour ñu jàppante pour ñu doyloo bàyyi ba lépp ba duñ xool keneen duñ xool leneen il faut ñu am ñu organiser ba li ñu soxla yëpp ñu di ko defal seen bopp ba ku leen di dimbale daf leen ci point bu mujj bi nag mooy gis naa fi loo xam ne neex na ma lool mooy bi ñuy ñu doon bu ñu doon ci délégation yi ñuy présenté baax na waaye nag biñ demee bay joxe addiya ñu ne diw murid joxe na addiya diw sëñ taalibe sëñ Babacar joxe na addiya ah loolu dafa parce que façon bu mel noonu wane na ne yéen waa Passy moom ak yéen waa tund bi talu leen di xuloo ak xeex ci ci ci xam ngeen ne yéen a bokk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñëw ne jox leen ko fekk na xool ko moom dañ dañ lay tënkal dara rek ci sart yi sart yi mooy tarixa tijaan mooy tarixa boo xam ne boo xasee bu jàpp doo ko bàyyi yaa ngi dégg nangu tarixa tijaan ma ne mooy tarixa bi xam ne boo ko jàppee doo ko bàyyi amul jàpp naa ko mais boo ko jàppee doo ko booleeg beneen tarixa waaw may ñu jël ko. boo ko xasee ba jàpp doo ko ziyaare ci beneen wëli bu dul si jàpp. loolu nag jar naa leeral waxuñ nga am sa mbokk dem seeti ziyaare lañ wax maanaam ci ziyaare sëriñ waaw wala nga jàpp da koy dem pour mu tëbb la waaw. loolu it Cheikh Tidiane waxut parce que dafa xeeb ñeneen jàpp ne ñeneen ñi baaxut mais dafa ne jigéen benn jëkkër lay pour ñu bu amee doom ñu xam kan moo jur doom loolu bu ko defee dana góorgóorlu loolu man mu daan ko def ci sàmm waxtu yi julli juróom di ko def ci la ak ak ponki lislaam yi li ci man yëpp nga gën cee góorgóorlu mu gën a baax daanaka daal ci gàttal lii rek mooy mooy mooy ci ëpp solo boo ko nangoo li ci des moom dañ koy dañ la koy dañ la koy dañ la koy leeral tariqa tijaan tamit tijaan bi la muy wërdu subax bés bu set nga wasifa benn yoon ajjuma ju jot nga def sa kër ajjuma loolu mooy mooy tarixa nan nga loolu kon nag jox nañ la tarixa tijaan ci ndigalu Cheikh Tijaan ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ndigalu Baay waaw waxal alhamdulilahi rabbil alamin waxal صلاة الله ثم السلام فطرها